أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى ولما أتتها نوديت يعني نوديت الباب فاخلع من عليك إنك بالوادي المقدس وكانت النار نار النقطة نقطة التوحيد ولكن النقطة البيضاء قبل النقطة السوداء ولما تحققت الباء بقدرها وأمام مقدارها العظيم أخذ بزمامها وأناخت وانبسطت تحت نور الألف قد ظل لصورة عيني ومن هناك ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ولهذا طولت باء بسم الله الرحمن الرحيم ثم سارت تنقلا حتى وجدت الألف وهو يوسف الحروف وجدها تقول لأبيها يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ثم تتابعت الأحداث إلى أن صارت الفتية تفقد صواع الملك وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ومنذ ذلك الحين أصبحت النقطة البيضاء نقطة سوداء تحت بسطة الخط وفي آخر وهلة أصبحت الألف محمد الحروف لكن إذ قالت طائفة يا أهل يثرب laa maqaama lakum farjiu kaana muhammadun fi gaybi lgayb dalika nuur alilahi ma yusaddiq anna qisas alanbiya kaanat fi lazal alilahi rabqan fafataqnaaha فللغيب فيها نصيب وللشهادة فيها نصيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di leen ndokkeel ci guddi suñu large lépp lu amati ci àdduna yegguma fenn baatam boobu rek doy na bu ko defee kon nag sang yi fi toog la bokki bokk yëpp di suñuy bokki bokk ñu ngi toog tabaarakallahu kër diine yi ci des yëpp seeni représentant yi ngi fi tabaarakallahu mbootaay diine yi fi nekk ñu ca bari yónnee nañu seeni ndaw loolu yu baax yi itam wàllu famille moo xam ci famille si barakallahu soxna Kiné si Seyid Cheikh Ahmed Tidiane mel na ni toogaayam ñun ñëpp sax yu bale la tabarakallahu njaboot yaa ngi koy am na fu nga xam di baaxu yàlla kon nag yàlla na sax ak mu ko bokkal ñëpp tabaarakallaahu góor yu baax yi yëpp may wax ni ma soxna Astu Si bu sëriñ Abdou Aziz Si suñu wéy yu mbokk jaar na fi ah kàddu yu rafet yi waxtaan yëpp ak magam soxna Kiné sunu bàjjenu bopp yi soxna yaay Sophie si ak soxna yaay Fat si ñoom ñëpp yóbbante nañu délégué mi tuddal seen nuyoo ak seen nemi mu mel ni tabarakallahu ñu ngi bokkal daara bokkal daayira bi bokkal tarbiya bi bokkal pas-pas bokkal mbokk gi wëllëre yi ñëpp ak jigéen bu mën teew rek teg kon nag ngi nuyu yéen ñëpp di leen masawu coono bu dee ci wàllu yi tam responsable yi mën a teew teew nañu mu mel ni itam Macky Sall ci ngoon yónni na fi benn ndawam mu ñëw doon jotal ndokkeelam ak di wax ñu ñaanal réew mi kon nag képp ku fi teew ci biir ak ci biti sant waaye sant yàlla la ndax guddi gi dafa am borom muy yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu defee ñuy ñaan sang bi bu ñu paree ci xew mi mu jël waaw sagari njaam jox ko jaam bi mu mel ni guddi tey gi nag sangu sang bi mooy sunu boroom bëgg jox jaamam bi ñuy wax Muhammad ay sagari njaam bi ku ca war a xaj rek di nga mu mel ni li góor gi waxoon wax ni ku nekk am nga l'œuvre de ta waaye bu ñuy seet yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa dañuy wax ni c'est l'œuvre de son existence moom sunu borom mu mel ni nag boo xoolee ci fi mu jaar ak moom daa ci war mën nangu lu bari ndax subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaram ila almasjid alaqsa alladi baarakna xawlahu li nuriyahu min ayatina kon li nuriyahu min ayatina ci sagari njaam yi la bokk yaasiin walquraani alxakiim innaka la min almursaliin boobu it ci sagari njaam yi la bokk waaw taaha ma anzalna alayka alqurana li tashqa mu mel ni boobu it ci sagari njaam yi la bokk waaw buñ ko doon lim duñu fi jóg mais lu tax ndax dafa bari lu ñuy nettali ci histoire yi xew te fekk histoire boobule même bu ko alquran nettalee xewit la parce que histoire bu gis yàlla nettali ci alquran dafa am double fas face ba mu xewee ci xayb bokkul ak face bi mu xewee ci shahaada mooy sunu àdduna moo tax laata yonent yàlla Muusa di ñëw te mooy yonent yàlla Muusa bi ñu yónni ci yahud yi ca ahlul kitaab laata yonent yàlla yuusuf di ñëw te mooy yonent yàlla yuusuf bi alquran nettali laata seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñëw te mooy bi ñu leen wax léegi am na yonent yu tudd seen tur te di ay xaraf duñu ay jëmm ay xaraf lañu ñu di leen tudde muusal xuruuf di leen tudde yuusuful xuruuf di leen tudde muhammadul xuruuf waaw xaraf yooyu dafa am démarche boo xam ni seen histoire fa la jaar xam nga booy seetlu ci sunu borom bi muy wax kuntu kanzan muxtafiya maanaam ci lu jiitu moom sunu boroom mu wane ni kenn xamu ko woon kenn xamul fu mu nekk ñàkk a xam gi ñu ñàkk xam fu mu nekk moo tax li Seyyid Cheikh wax ci xasida bi mu way turandoom baaun tasiiru tanaqulan wa bi sayriha waladat xutuuta mushayyidil bunyaani ma nuqtatu tawxiid nuqtatu tawxiid boobu jëkku la nekk ci baa bi ndax ba mu koy nekk baa ñëwagul nuqta bayda la njëkk nekk ñu denc ko ci cercle miimu baa siin mimara miim bi cercle bi vide boobu mooy ak nuqtatul bayda foofu mooy kaana allahu wala shay'a maahu yàlla fa mu nekk moom rekk kenn fekk ko fa mu jiitu lépp te dara jiituwu ko kon bi mu fa toogee te yëg ni tëju foofu rekk du tax ñu xam mooy kan xam nga ca la waxe ni bëgg naa ñu xam may kan kuntu kanzan muxtafiyan lam uraf fa ahbabtu an uraf fa xalaqtu alxalq moo tax nag bi kanz boobu ñi ko jëkk que ci xalq yi yàlla njëkk a bind ñu ngi leen tudd asxaabul kahfi war raqib bu bokkul ak bi nekk ci suuratul kahf beneen asxaabul kahf la ñu nekk ay genre naamus ñu di visité grotte bi bi yàlla doon denc boppam ci la démarche bi commencé moo tax fokk nga comprendre démarche bi yàlla di doxale lu nekk noonu asxaabul kahfi war raqim parce baatu raqim bi mooy lan pourquoi yàlla tudd kitaabum marquum te bokkul ak alkitaabul mastuur alkitaabul mastuur mooy bi ñu yor ñun di ko jàng alkitaabul marquum ci la asxaabul kahfi war raqiim doon essayer pour comprendre démarche bi yàlla def ba li xew-xew ci la dem ba ñu wan leen ni leen alquran bii ñu wàcc wàcce ñu di ko jàng def di synthèse rekk ci alquran ba yàlla denc ci kaw gis nga boo demee ci alquran boobu suuratul fiil bi ñuy jàng alam toro kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yajcal kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi xijaratin min sijil fa jacalahum ka asfin maakul ñu fekk fa saar bi ñu tudde ko ab taabu alam tara ñu laaj nu mu demee noonu ñu ni Jibril mooy jàng alam tara mooy jàng alamtara aadam ñëw jàng kayfa faala rabbuk noox ñëw jàng bi ashaabil fiil ibrahim daawud ñëw jàng alam yajal kaydahum suleymaan ñëw wax fi tadlil ibrahim ñëw wa arsala alayhim tayran ismail ñëw wax ababil muusa ñëw wax tarmihim bi xijaara isa ñëw wax min sijjiin muhammad ñëw mottali wax fa jaalahum ka asfin mu di saar bu nga xam ni moo nekk arme nucléaire bu yonent yi ndax ñooñu ñëpp ci jaxasoo moo tax léeg événement am bu tragique ñu naan dañ leen dóor yart wala dañ leen a dóor jaasi wala ñii dee nangam nangam te fekk kenn laalu leen saar bi alam tara bi ñooñu ko séq maa tarakat aqlaamuhum xarfa jismin gayra munaajimi baatu xarfa jismu boobu mu tudd foofu la wax bi nekk ndax dañu wax ni bi yonent bi ñëwagul nit xaraf xaraf bu ñu tomb la kenn maasu ko te xaraf bu ñu ko tombul maasuñu ko jàngu ko du yomb ku sa àlluwa bëtt rek yaa koy man waaye nit def di beneen xeetu xaraf boo xam ni bu dul woon yonent bi ñëw tongu ko maas ko kenn du mën a jàng nit parce que anasir ndox safara ngelaw suuf dañ di ay xuruuf mais kenn tomb leen kenn maasu looloo tax ndox di naqi buñ ko tomboon maas ko ndox du naqi safara it di xaraf bu ñu tombul kenn maasu ko moo tax muy lakki bu ñu ko tomboon maas ko du lakke ngelaw it di xaraf bu ñu tombul maasuñu ko moo tax muy àlli lu mu romb suuf moom it di xaraf bu ñu tombul kenn maasuñu ko moo tax muy muy sëkk moo tax sunu boroom nag bëggoon ñu yar leen yar anaasirul arbaa moo tax mu transféré leen pour dugal leen ci xalqul insaan pour yonent bi buy tomb nit di ko maas yóbbaale annonceur yi waaye ba la ñuy yegg si foofu code bi code bi nga xam ni moo déclenché yépp mooy bismillahi rahmani rahim mais li jaaxal ñu bari moo di bismillahi rahmaani rahim rekk ngay gis fu ñuy jële baa di ko defal liif mais bu dul ci la amul ñuy laaj nag lu tax baa bi ci bismillahi rahmani rahim di am alif bi parce bu jëkk bi moo di baa bokkul ci xuruf nuraaniye yi ci xuruf zulmaaniye la bokk bu ñaareel bi mooy baa ci adaatu tashbih la bokk booy melal dara baa ngay indi soog a indi la ngay melal ashbahu bi nangam comme ci xuruf zulmaaniya yi la bokk nag dafa toog la daloon Muusa dal ko te mooy sedd bu metti ba Moussa nekkoon mook waa këram te mu seen safara te mu wax bokkam yi nekk xuruuf zulmaaniya ni moom te fukk ñeent lañu parce que xuruuf nuraaniya yi fukk ak ñeent la xuruuf zulmaaniya yi fukk ak ñeent la boo ko boolee alphabet bi nekk vingt-huit bu ci laamul alif duggul mu seen safara bi wax la Muusa waxoon inni anastu naar laalli aatikum minha bi qabasin aw ajidu ala nnaari huda da ne liw ñu ne waa mu ne seen safara bu ma demee muy safara ma indi gillint bu ma demee muy leneen ma indi gindiku xoolal ñaari baat yi gillint ak gindiku ba mu yegsee surga yëg ni li mu gis du safara nekkee leeru nuqa ba moo doon reflété noonu mais booba nuqa bi nekkagul nuqa sawda dafa nekk rek nuqa bayda kenn mënu ko définir bi mu dikkee bëgg dugg baat bu mel ni bi waxoon ak Moussa wax ak moom ni ko faxlaan aleyk ndax innaka bilwaadi almuqaddas su mil sa ñaari dàll fii kenn du fi sol dàll mu ni soluma dàll bi di xool tànk yi ñu ni ko déedéet waxuñu dàlli tànk danga ànd ak ñaar yu fi dul dugg mooy zulmaaniya gi nga bokk te fii nuuraaniya fi xew bu ñaareel bi mooy adaatu tashbih nga te borom kër gi laysa ka mithlihi kon nag summil sa dàll mu daldi di summi ñaari dàll yooyu ñu ne ko kon nag bismillah loo bëggoon mu ne xanaa ngeen fat ma xuruf yi di xoolante ndax ñemewuñu dëb dëb di ko di ko fat alif bi xool ko yërëm ko ñu ko comme sonn nga ba ñëw fii boo nangu tënku ci li fiy dox man dinaa la adopté moo tax baat bi fils adoptif la walla nga ni fii adoptif la bu la ci neex waaw ñu ni ko foo bëgg ñu héberger la soxlawuma ñu héberge alif bi comme yàlla may na ma ba sa dugguma ndax allafa bayna quluubihim soxlaatuma leneen may ma fii ci sa suuf di sa takk ndeer moo tax mu nekk bastatul xat ndeeru alif bi fekk nuqta bi toxoon na ci cercle mim bi yéeg ci kaw alif bi mais li mu nekk nuqta bayda moo tax kenn du ko gis moo tax léegi la bind di def hamza mais amul woon nuqta bi rek moo nekkoon ci kaw nuqta bi mooy nuqtatu tawxid représenté sunu boroom alif bi mooy muhammadul xuruuf mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy al insaanul kaamil waaw ah. moo tax nag uyuunul arwaaxi min nuuril hudam bajasat fa innahu al jinsul ala maadinu sutumi du doo ko wax waaw moo tax mu wax waxam boobu ana min allah am na ñu koy fiire rek fiire bu gàtt man ci yàlla laa jóge mais fekk na am na baat bu ñu fàtte yaani bila wasat ani yaani ana min allahi bila wasita wal muminuun jubluwuñu ci jullit yi al muminuuna foofu mooy al ambiya wal muminuuna minni yàlla gannaaw moom mën la wut ba noppi kenn doxul sama digganteeg moom ba mu baree ci man nag la jël yonent yi ñu jóge ci man moo tax ku ci soxla yàlla foog nga jaar ci man parce que may porte de communication bi waaw ah, yonent bi du porte d'entrée parce que yàllay al awal mooy al axir mais porte de communication la pour jóge fii dem ci fii ci des waaye bi ñu laajee alif ni ko danga adopté baa te muy bokk ci xuruuf dulmaaniya yi te yi fi nekk yépp ci ay xaraf ay xuruuf nuuraaniya la noo koy laayee mu génne portable moom alif bi portable bi muy communiquer ak sunu boroom moom yonent bi mu génne ko yéen ñëpp seen portable boo taalee sa portable mu laaj la code bi boo koy jox code bi chiffre boo ko jox bu bu apparaître tuuti rek après étoile lay doon nga defaat beneen chiffre mu apparaître tuuti nekk étoile nga def troisième bi ba quatrième chiffre bi day apparaître tuuti rek nekk étoile boo paree ñeenti étoile ngay gis dootoo gis chiffre loolu la leen alif bi jox comme preuve ni la nekkatul baa bu bokk ci xuruuf zulmaaniye yi mais maa ko adopté dootul xaraf léegi code la waaye gis nga toujours boo defee sa code ba noppi nag booy composé numéro chiffre yëpp ñooy apparaître dootul nekk étoile ba tax na ñu adopté ko mu am affaire beneen bu xewaat nekk na muhammadul xuruuf moom alif bi baa bi nekk muusal xuruuf ba ñëw ñu adopté ko mais mu toggaat tuuti gis beneen liif te fekk moom mu ngi sës ci alif bi te mooy nekk liif bi ànd ak allah bi mu ni waaw liif bi mooy kan ñu ni ko mooy yuusuful xuruuf mu toog toog rekk dégg moom xaraf bi muy wax bàyyi bi naan ko inni raaytu ahada achara kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين mu ne waaw lu xew kër gi li fi xew jaaxle na de waaw ah. muy laaj nag waaw kii ahada achara kawkaban yi mu tudd ak alchams wal qamara yi koy sujootal anañu ndeke mooy xaraf yi composé basmala bi ndax alif bi bokkul bokkatul yonent bi la baa bokkatul parce que Moussa la donc alif bi ci des muy Yuusuf moom moo gis ahada achara kawkaba ak alchamsa walqamar kon nag alchamsa walqamar mooy siin bi ak mimara bi ahada ashra yi boo génnee liif bi nekk yuusuf bi donc laama ci ne ak laam ha soxir rahmaani bi doo indi alif beeg laam bi raabi rekk ngay indi ab lonk bi miim bi nunara bi ak raaw rahim bi ak xalonk bi ak yaa bi ak miim bi muy ahada achara kawkaban yi mu soog a nit ñi ndekete lii ñëwi ji yëpp nekk xewet lay doon genre big bang boobu nag jur xuruf yooyu ak seeni identité moo waral sunu borom bi mu bindee te xool yëf yi ni mu demee mu wax yonent bi ni ko fokk ñu organiser al mamlaka al insaniya le royaume de l'humanité. yonent bi laaj ko noo ko bëgge looloo tax nga gis ca yéene ba mu tudd baatu inni jaailun fil ardi xalifa waaye booba yéene rekk la ah. ndax yàlla du tudd baatu président maanaam baat yi ñuy utiliser ñun moom du ko tudd baatu xalifa rekk lay wax mais comme bi mu koy def bu jëkk bi wax na ko yonent bi mais impliqué wu ko aadama njëkk a génn yàlla propose pour ñu def ko le chef de wutal ko barab bu jekk ñu tudde ko aljanna mook soxnaam yàlla wàcce leen foofu mais ñu toog tuuti benn rebelle bu tudd ibliis def coup d'état bi muy def coup d'état li tax mu réussir ko mooy brigade bi nga xam ne ñoom lañu charge pour ñu entourer Adam te mooy malaayika yi yàlla doon laaj seen xalaat ci def Adam xalifa parce que malaayika yooyu kenn bindu leen min ruuxil malak wa innama xuliqu min ruuxil bachar ndax ñoo war a gunge nit moo tax mais comme ñoom amoon nañu doute ci nomination bi bi ci it mooy am nañu une sorte de jalousie bu ñu nëbb jalousie ba ñu nëbb moom la leen yàlla wax ni ine alamu ma tubduuna wa ma kuntum taktumun looloo tax ñoom bi Iblis di def tentative bi pour déstabiliser Adam intervenir uñu ba Adam perdre pouvoir bi ñu transféré ko yóbbu ko feneen sunu borom bëgg ñu créewat ko ci beneen façon bi yoon mu impliqué yonent yàlla Muhammad bi mu waxtaaneeg moom ñu xool ñoom ñaar waxtaan ba seet naka la ñuy doxale etaa bi ak gouvernement boobu ak naka la ñuy nomee ñi ci nekk yonent bi laaj sunu boroom ni ko wax cette fois-ci kan nga bëgg mu nekk chef mu ni ko ruux parce ruux iblis xamul fu muy nekk te bu xamul fu muy nekk du am pexe bum ko déstabiliser ndax yasalunaka an ir ruux qul min amri rabbi ñu def al mamlaka al royaume de l'humanité jël ruux def ko le président le chef de l'État mais yàlla attire attention ni ko tu es un simple chef mais bul fàtte ni royaume la mamlaka la man may malikal mulk mu d'accord ci ak moom mu ne ko mais un dafay am ay ministre yeneen ci bi laaj sunu boroom ni ko yan ministre nga xalaatoon sunu woroom ni ko alam najal lahu aynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn mu ni nañu jël bët def ko ministre jël nopp def ko ministre jël bakkan def ko ministre jël gémmiñ def ko ministre jël der der bii def ko ministre mais sunu borom wax yonent bi ñu ko gis nga ministre yi ma nommé bët mi ma njëkk a tudd dafay njaaloo nopp mi ma tudd dafay njaaloo bakkan mi ma tudd dafay njaaloo gémmiñ mi ma tudd dafay njaaloo der mi ma tudd dafay njaaloo moo tax buñ leen joxal seen budget ñu koy géreel seen bopp mu ni ko kon nu ñuy def mu ni ko comme al ayn al basar moo yore biram nañ ko dénk budget bi te moo di bu ayin bët bëggee utiliser budget bi te fekk dafa nara a njaaloo ba far lànk du ko jox budget bi ndax lim ko nar a def normalu waxul min ayunihim de min absaarihim waaye bu dul loolu nag bu laajee budget bi lu mu war a fonctionner jox mu ne ko nopp bi nag mu ne ko moom it dafa mel ni sama ku takkook moom la mu ne ko waaw ah, mu ne ko nañ ko jox budget bi mais moom it bu naree njàllu moom dégg bi rek parce que ay sammahuuna lil kadib ñu ngi fi buñ ko naree rek na bloqué budget bi bu mu ko ko jox mu ni ko ci nan mu ne ko summun summun gémmiñ ngi noonu mu ne ko gémmiñ mu ngi fii il est ministre de la communication il est le porte-parole du gouvernement mais moo dàq njaaloo moo tax buñ ko jox budget bi mu ne ko kuñ koy jox mu ne ko nañ ko jox ak chafetayn parce que bu tuñ ñeppiwul làmmiñ du wax ñu jox ko tuñ mu des bakkan moom itam ñu ni budget nuñ koy def ñu ni nañ ko jox xet ndax moo takkook moom waaw moo tax bu njaaloo moom bakkan xet yu neex yem yañ ko xamewoon dootu ko xeeñ day mujj xet yi koy xeeñ yépp yax moom lay doon la baridin wala karim der bi noonu moom itam ñu ni buñ ko jox budget ñu ni kuñ koy jox ñu ni yëg-yëg parce que moo taxoog moom waaye ñoom ñi ñu jox budget bi nag suñu boroom wax ak ñoom ñoom itam ni leen damay am audit pour seet ba xam budget bi ngeen yor yéen it ci lu ngeen ko def moo tax indi inna sama walbasara walfuaada kullu ulaika kaana anhu masula loolu mooy audit bi moo tax nag sunu borom bëgg comme budget bi defee noonu ñu seet impôt bi ñu ni impôt bi ñu war a jox bët mu ngi ci bu gisee ku mënula xool maanaam ku silmaxa mu jël ca la mu am jox ko impôt la bu gisee ku tëx li ñuy wax ak moom du ci xam dara xanaa nga bindal ko nga wut loo koy dimbalee xeet la ci impôt bi bu fekkee ku muuma mënul wax soxlaam ngay jël jox ko lu mu faja ajoom mën nañu jàpp ne impôt ci bakkan bi ci der bi ndax am na ñu nga xam ni seen feebar léeg-léeg mu lëjal leen ci façon bu nga xam ni ñu yore asma yi ñu yore feebaru der yi mu bëgg ñu di leen jox lu leen di dimbali mu dugg ci empo bi mais ñu gis ni loolu doyul pour mën a ñu mën ci rouler ba mu jeex mu ñaan moom sunu borom pour ñu contacter cinq bank ñu subventionné leen banque bu jëkk bi mu ngi tudd Tisbar ah dañ ko ñaan moom mu alimenté caisse noire bu président bi te mooy roox moo tax boo gisee julli juróom yi yàlla deful julli juróom rek pour ñun ñu ñëw di ko jullil moom mais julli juróom yi dañuy contribuer ci financement boobu loolu tax tisbaar nouriya takkusaan naariya timis maaiya gee turaabiya suba hawaaiya waaw tisbaar bi subventionné roo ci leer gi mu am pour leer gi bañ dagg tàkkusaan bi subventionné naar bi te mooy énergie ba ci énergie renouvelable li timis bi moom itam financer système hydraulique bi parce que maa iya la gee bi financer habitat ak aménagement du territoire parce que turaabiya la suba gi financer environnement bi parce que hawaiya la juróomi financement yi ci la ñuy ci niveau gouvernement bi ñu pare ba tëral ministère yi tëral yooyu budget yi ruux ni waaw man takkaguma jabar bi te ndax dinañ yor état bu toll ni te doo takk jabar yàlla joxe ndigal pour ñu jël an nafs def ko muy la première dame mu nekk soxna waaye mu wax ko nag ni ko nanga def très attention mooy sa soxna mais amul même pouvoir bi nga am parce que constitution bi lay régir bokkul ak moom sa soxna la nag mën nga ko teral mais bul ko jox pouvoir yi nga am ndax bu ko neexee mel nii bu ko neexee mel na looloo tax wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaaha mu ni d'accord waaye yëf yi jeexagul mu ni waa mais gouvernement rek man président sama soxna mu nekk première tam cinq ministre ndax loolu doy na mu ne ko pareeguma di ñu jël cerveau def ko muy primature ñu fay doxale lañ fa war a doxale jël conscience def ko muy premier ministre ñu jóge fa jël xel def ko muy président de l'Assemblée nationale pour mu nekkal fii ñëpp kenn du ko corrompre ñu wutal ko ñaari vice président premier vice président bi mooy xam-xam deuxième vice président bi mooy xalaat waaw branche xam-xam yi ñooy député yi opinion yi ñooy ambassadeurs yi yàlla nag ni ko ay mën nga commencer sa liggéey moom ruux mu ñaan sunu boroom ni ko gouvernement bu toll nii te yow nga nekk malikal mulk doxal ko rek te awma fu ma wéeru du sotti ci la ñu jëlee yonent bi sallallahu alayhi wa def ko le médiateur mu nekk médiateur bi diggante ruux ak sunu boroom ak li xew ci état bi waaye ñu toog bés nag ruux dem ci yonent bi dama bëggoon nga gisal ma malikal mulk mu ni ko ndax lan mu ni ko gis nga sama soxna bi nafs mi bu baax la sax waaye dafa am ñaari xarit yu mu nekkal yu nga xam ni fekk muy nekk ak ñoom dara du marché am na benn xaritam bu tudd nafsa xayawaaniya ak beneen xaritam bu tudd nafsa nabatiya te tolloowul ak ñoom personnalité tolloowul ak ñoom dignité te damay gis léeg-léeg am yu may digal ma yëg ni ñoom ñoo koy influencé moo tax wu ma ubarrewu nafsi sama jabar daal am na ci lu nga xam ne mënatuma wax ba mu jeex ndax inna nafsa la amaratu bisu mun ko kon foog nga waxal ma borom bi mu dimbali ma ci affaire boobu bi ci des itam mooy chefu opposition bi def di ko garaaw ruuxay wax ak yonent bi de chefu opposition bi def ndekete chefu opposition bi ndeke allié rebelle bi la te mooy al hawa hawa mooy chef opposition bi mu ni ko def di ko garaaw ba noppi élément yi mu nekkal kenn yeesu leen te ñoom lay yebal ñuy dem ci sama jabar di ko influencer élément yi mooy achahawaat te xam nga zuyina linnaas xubbu chahawaat min annisaa wal banin والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب xam nga loolu bàyyiwuñu fi ah dalika mataaul xayaati dunia te comme yàlla ñu fi indi nag wallahu indahu xusnul maab waaw waaw waaw waaw yeneen ci bi ni ko wax dëgg yàlla li nga wax di kenn mënu cee teg dara kon dinaa ko wax borom bi dem wax affaire bi borom bi ni ko waaye nag secret d'état la ah <laughs> maana passion alhawa mooy passion mooy chefu opposition bi te dafa d'accordul ak roox ba noppi am ay éléments yu muy influencé ah mooy neex-neex yi yi nekk ci àdduna ak am-am yi waaw donc yooyu ñoom lay utiliser pour di ko influencer la première dame te mooy an nafsu natiqa donc bi yonent bi demee wax ko sunu borom ndax jaaxle ruux yonent sunu boroom toog tuuti ni yonent bi dama xawul am jot na mais dina seet ci chargé de mission yi ma yónni leen ci jabar ji ñu wax ak moom daa di woolu ñett ci chargé mission yi ku ñuy wax an nafsul kulliya ak ku ñuy wax al aqlul kulli ak ku ñuy wax al ruuxul kulliya mu woo leen ñoom ñett mu leen kaay leen ngeen demal ma ci nafs bu ngeen demee ngeen wax ko ni ko bi ma koy tànn pour mu nekk jabaru roox booba jigéen ñépp ngi fi ah. kon nag bu mu fi rombee jigéen ñépp tànn ko pour mu nekk jabaru roox te bi ma koy tànn benn ayib nekkul ci moom duma neex nag mu xëy yi ma defoon ci moom ci xeeti di dignité yiñ ko war a nawee yépp mu yàqu ko pour ay yàkkamti yàkkamti parce que ku yàkkamti taxa naan petit bu robinet ubbee nga rus daal di bind benn mot bu confidentiel jox ko ñetti chargé de mission yi ni leen dem leen ndànk rek ngeen joxal ma ko nas nafs daal di ubbi lettre bi ndeysaan daal di xool sunu borom ni ko yaa ayyatuha nafs waaye irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya waaye fadxuli fi ibaadi waay waaye wadxuli jannati waay ndeysaan rongo ñi commencé di wadd ndax ni yàlla waxee moom ni ko bu ma sañoon choix bi ma def ci yow ak yéene bi ma am ci yow bu ma sañoon nga def jom boo xam ne boo dellusee see ci man nag ma am fiyaat te bu boobaa nga xam ni maa gën ci yow jëkkër dinaa la teral ba nga gëlëm kon nag sagal ma ndeysaan mu jooy mu jooy moom it daal di jël kayitam bind ca moom itam ni bu ngeen demee ni sunu borom na ma paree sama appartement ci aljanna sama joma yegg ci duma ko trahir kon nag rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min firawna wa amalihi te mooy alhawa wa najjini min alqawmi aldalimina te mooy alchahawaat waaw ma musalee ci ñoom rekk nag dinaa def jom ba sama aljanna joojoog sama appartement bi ma mérité ko ñoom it ñu jël ñu jël wallaay wallaay mais mooy mooy xam nga passion dafa am ay dérivé dérivé yi mooy shahawaat yi mooy yi yàlla tudd ni jigéen ca la bokk jigéen bu ñu yarul mën na yàq gor waaw bu ñu yarul mën na tas kër waaw ay takkaay yoo xam ni defaruñu ko boroom mu soog a takku mën na yàq boroom alal ju bari boo xamul fu mu jóge mën na yàq boroom waaw corruption ñu xëy may la loo xamul nu mu demee mën na yàq gor yii yëpp ci shahawaat yi la bokk mu ni ko nag te hawa ko fi indi parce que hawa lan moo tax mu garaaw parce que maam hawa maam hawa gis nga hawa hawa fi maam xawaa tëddoon ci aadam ba bi génnam jotee yàlla soog ni na xawaa génn dafa génn rekk xawaa daw toog palaasam loolu tax mu mën leen jekku ñoom ñaar looloo tax ci biir gouvernement bi revendication boobu ruux def ba ca gën garaaw yonent bi seet lu ko wax ko sunu borom mu ni ko der ak li mu yilif def ci am ñaari chantier yoo xam ne chantier yi buñ ko contrôlé wul bu amee défaite boo wëttuwul empire bi yëpp dana écroulé wu ñu ko ñaari chantier yi yenn la mu ne al batn wal farj biir ak taat ngeen baal ma baat bi njàng mee tax biir chantier la taat chantier la bu ñu leen seetul naka la chantier bii demee mën nañu mam mamlaka bi yépp surtout farj bi ci boppam taat bi parce que dafay wane ni moom dafa am partenaire bu bokkal chantier bi partenaire bi mooy góor beneen partenaire bi mooy jigéen ñuy couple bi bu ñu seetul façon bi ñuy utiliser li ñuy investir ci chantier bi bu defisit bi amee rekk mamlaka bi yépp mën nañ ko yëg biir bi aussi la même chose ñu boole leen nag ak ñaari entrepreneur loxo entrepreneur la ci tànk entrepreneur la ci ñi ci des ñëpp ay ouvrier lañu baaraam ouvrier la mbagg ouvrier la conco ouvrier la oom ouvrier la ñu wutal leen grue bu nga xam ni nag moom moo leen di téyeel yëf yi ba du daam mooy colonne vertébrale waaw ba tax na fonction boobu ñu war a xam nga li ñoo tuddee manger pour vivre mais waxuñu vivre pour manger lan moo tax tey hôpitaux yi fees dell xeetu jàngoro yi te li ci ëpp kat lekk ko def te ña fa tëdd ñi ci ëpp ñëpp ay njóobeen lañu sama mbokk mbële Cheikh Tidiane <laughs> diabète yi tension yi nga xam yëpp nga xam ni tey ñaata nit ñooy xëy di faatu ndax feebar yu mel noonu ndax ñu ñàkk yar chantier bu biir waaw bi ci des ak gravité yi ci nekk yooyu yëpp roox bi bëgg ko gérer mais bi ko gën a jaaxal nekkul boobu dafa toog rekk yonent bi dellu si ni ko sunu borom ne na dafa bëgg a def visite officielle ni ko moo tax ñu yebal si ma sax pour ma gaawantu ñëw jël disposition loolu tax bu'istu li utammima makaarimal axlaaq ndax préparer visite officielle bi mu tiit ni ko waaw ah mais sunu borom bu ñëwee fu ma koy dalal yonent bi ne ko xanaa ci palais bi mu ne ko ban palais mu ne ko alqalb mun ko may yàlla xajul fii mu ni nee na laa yasaau ni samaai wala ardi waaye wa yasaau ni qalbu abdil moomin ah. nee na buy ñëw day réduire dispositif protocolaire bi muy àndal yépp ndax bu àndee ñoom asamaan ak suuf sax duñ ko àttan waaye bu ko neexee mu réduire ko ba xolu jullit bu sell yàlla wàññi boppam man caa dëkk mu ne ah d'accord bu dee loolu la mu ne ko ah mais nga xool palais bi nag bu nangoo pour ñëw ji foog nga xool ko parce que fi inna fil jasadi mudghatan ida saluhat saluha al jasadu kulluhu waaye wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wa hiya alqalb mun ko gis nga palais bii nag buñ ko defarul condition yi ci war a nekk nekk ci li fi xew bu bu yàqoo rekk état bi yépp mën na fi jaare ne ko kon nag foog ngeen seet condition yi bi ci desit mu ni ko sunu woroom nee na balaa ñëw visite officielle bi mu ni ko li mu gën a bañ mooy culte d'image sunu woroom nee na bëggul gis photo pour buñ koy teeru di def nii photo parce que moom amul photo ndax laysa ka mithlihi shay mu ni ko président bi nga xam ni moo koy war a teeru it bu mu fa def photon parce que yàlla nee na duma ma considérer photon fii bala maa considérer photon moom it mu del si pour visiter si ma ba ma xool ko xam ni wujuhun nadira la ila rabbiha nadira mu ne ko bi ci des bu leen jël xaalis di ko neexali nit ñi pour ñuy dugg ci kaar yi pour teeru si ma ndax inna allaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum bu ñëwee rek résultat bi bi am ci biir euh, palais bi ak liggéeyin bi loolu rek lay xool moo ko intéressé bu laajee mu continuer mu continuer mais bu laajul bu ñibbee bul xam luy xew roox ne ay jëkkoon nag nañu daal di sàkki pexe te gis nga Seyid Cheikh Ahmed Tijani yi góor gu tedd gi lenn bis dafa am audience ak Senghor Senghor soxla woon ko pour benn dossier bu mu bëggoon discuter ak moom bi mu ñëwee ba Senghor accueillir ko loo ko ci canapé bi muy toog Senghor toog ci fauteuilam nee mu bés benn buton secrétaire bi dugg si ne mu ko jox ma dossier sangam bi ma la dénkoon nee na bi dem jëli ji dossier bi ñëw jox ko Senghor mu ne ko merci secrétaire bi di wàññeeku di dellu ci bureau nee na Senghor wax Serigne Cheikh ni ko Serigne Cheikh mu ne nga defa ne xale bi rafetul mu ko rafet na góor gu ko gis ndox ko mu ne ko waaye gis nga palais bii fi la ñuy tërala li doxal réew mi bu ma fi moyee yàlla rekk dootuma fi def lu yàlla barkeel dootuma ñaan yàlla mu barkeel Senghor ñu ko moo tax may ruus di moye yàlla ci palais bi ndax liñ ma dénk mën a ñoom xoolal boobu façon seetlu ñu ko xale bi rafet na jekk na ku ko gis nopp ko mais palais bii bu ma fi moye yàlla duma fi liggéeyati lu yàlla nangu dootuma fi ñaan lu yàlla nangu suñu cheikh nag nee bis may waxtaan ak Abdou Diouf ba nettali ko loolu Senghor wax nee na mu taf Senghor yegg nag yow foofu mu ne ko mu ne ko kon di wóolu na la c'est ça qui gis ngeen nit lu ngeen mën a séq ak lu mën a xew bu wóolu amul jaroo waaye def def lu ni pour ay façade san ne marche pas waaw koy wóolu liy dox soog a mën a dox loolooy tax ci biir démarche boobu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu waxe noonu ci wàllu visite officielle bi disposition yi nga xam ni moom la sunu borom bëgg ñu jël ko affaire propagande yi nañu ko bàyyi yooyu yëpp intéressé wu ko parce que résultat rek moo ko intéressé yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam am beneen préoccupation moo di yàlla tànn na ko pour def ko médiateur te kom arwaax yépp ci rooxam lañ leen bindee du man seetaan rekk kese kese noonu yëpp yàqu ndax échec bu jëkk bi ci aadam du jaadu ñu seetaan pour muy répété wu pour wax la ka tax nga tal ko talu ko moo tax moom itam pour mu dimbale roox pour que résultat bu positif mën a am dafa mujj jël fonds yi mu am yépp moom yonent bi mu investir ko mais fonds yi yonent bi am fu mu ko jëlee ci salaatu ala nabi c'est très important fi la amee fonds yi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ñu ne waaw lu tax xanaa yàlla salaatoom rek doyul xanaa yàlla moom rek war na mën couvrir yonent mais lu ci indi malaaka yi ak jullit yi def salaatu ñu ni secteurs yi ñoo bokkul gis nga sunu boroom salaatoom ci yonent bi dafa bëgg toujours di confirmer li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka allahu nasran aziza loolu mu ko wax la bëgg jamono bu ne am lu koy confirmer yonent bi daram du tardé bu dee ci malaaka yi seen salaatu ala bi dafa bëgg di confirmer wa rafaana laka dikrak te mooy bu ñu sañoon dara yorent bi dootul jëm suuf ñu turam di jollee di ànd ak bu sunu boroom bu ñu sañoon lu ko yàlla sedd rek di ànd ak moom di jëm kaw te bañ daan moo tax ñoom ñuy def salaatu bu fekkee ni nag salaatu bi muuminiina yi di def ñoom dafa am loo xam ni moom lañuy ñaan ndax xam ni bu amee ñoom it seen wàll nga ca biir mooy ñaan gi ngay ñaan bu noddukat noddee ba noppi nga ne allahumma rabba hadihi daawati tamma wa salaati alqaayima aati sayidana muhammadan alwasilata walfadila والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته ñaan boobu moom la jullit di defe salaatu ala nabi ndax moom it dafay am pourcentage bu mu ci am xam nga xadd ngi xuloog taw te kiy seelu yëgul xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi aalami almulki wal arwaaxu taabiatun lilruuxi wal jismi ahada gaayatul koromi ku defe ni tagg rekk la ni mu dem te dina la xamoo lu xew parce que al arwaaxu taabiatun li ruux kon moom it du leen man seetaan te xam nga turu yàlla bi ñoo tudd muntaqim dafa am ay arwaax intiqamiye yu muy lâché waxuma la ku gëmul mais ku gëm sax léeg ñu taseeg yow pamti pamti la moo tax yonent bi moom itam ci uyunul arwaax boobu ñu ko jox yàlla sedd ko ci ay brigade moom itam am na ci GMI yonent bi am na ci roox yooyu GMI GMI te mooy groupement mobile d'intervention yonent bi am na ko am na it LGI te mooy la légion de la gendarmerie d'intervention yonent bi am na ko ci arwaax yi bu ko defee dafay am ñaari état major état major bi nga xam ni mooy yore ruuxul wasl ak état major bi nga xam ni mooy yore ruuxul fasl moo tax ci écran de surveillance yi muy am ki nekk ci biir cabine bi di def surveillance bi ruuxul bayaan la tudd ñu ko ko sédd ci li tubayyina linnaas moo tax arwaax intiqaamiya bu ñu attaqué ruux bu bokk ci moom ruuxul bayaan boobu muy son attaché de presse mooy gaaw informer ruux yonent bi ni ko sa njaboot sangam ca barab sangam ruux intiqaamiya yi dañ ko attaqué mu jël brigade bi ñoo tudde ruuxu shafaa dépêché leen pour ñu dem ànd ak ruuxul fasl dem sauver ji roox bi ñu attaqué ma ko wax ruuxul wasl bi nag lan mooy liggéeyam mooy ruux yi sopp yonent bi bay bëgg a dof te xamuñu fuñ koy fekk xamuñu nuñ koy gisee bu ñu ñëwee ci këram fekk garde yi taxaw duñu mën a dugg ci biir kër gi ñuy saraxu waaye sarax ma rek man ma dugg ci biir kër gi rekk même bu ma ko gisul sax baax na waaye sarax mu ngir yàlla waaye ruuxul was la di xool ba xam kenn du ko kii yu ne waaw duggal gaaw duggal gaaw bu ko defee ñenn ñi ci ëtt bi rek la yem ndeysaan di xool tabaxu ruux bi di kontaan ñenn ñi am chance dem ba ca saal ba ñu naan leen ci néeg bii la nekk dama ay waay ndeysaan di xam ne bu nee dëll ñu xëm waaw waaw ndax moo leen di dimbale ndeysaan ndax seen cofeel waaw ci yonent bi ndax moo waxoon nag qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni waaw yuhibbukum allah waaw bu ko defee ñu ñu koy defee ci boobu façon ndeysaan mais li ci gën a daw yaram du loolu ndeysaan mooy ni muy jëlee une partie ci salaatu ala nabi yooyu yónnee ko pour ñu liggéeyal ko ci ay tàngal ak ay bonbon yu ndaw ñu ne ko waaw looy doyee lii mu ni ndeysaan dafa am ay xale yu nekk aljanna ñu di leen tudde alwildaanul muxalladoon dañ di samay xarit fu ñu ma gis rek daw ñoom lay defaral tàngal yi ak bonbon yi bu ma yegsee bés ba ba ñëpp ñëw ana awalu man yuxarriku xilaqal janna fa yaftaxi llahu lii wa yudxiluniha wa maci fuqaraau lmuminin mais li ci neex du loolu mooy bu ñëwee ak cortège boobu ngay dégg sirène yi malaaka yu fëx ñu ne yeneen ci bay ñëw ak waa këram pour inaugurer si aljanna fekk mu yëg ni li mu yore ci umbaam li ñu construire ci aljanna doyul te bu ko bëggee boot ak yeneen yonent yi waa këram yëpp du ñu xaj mu jël ci budget bu salaatu ala nabi boobu pour ñu élargir aljanna pour ummaam man ci xaj bu ko defee nag ndeysaan mu jël tàngal yi yi mu jox ko jeune fille yi ñu jëndal ko ci ay parfum ay rawxun wa rayxaan wa jannatu naimin boole xitamuhu misk misk boobu xóorul ayn yi di fekk waa kër yonent bi soo a dugg si ñu di leen ko pulvériser malaaka yi itam naan leen udxuluha bi salaaminaan soyez le bienvenu mais aminina ji mooy confirmer la nga doon ñaan ca fatihatul kitab gayril magdubi alayhim wala daalin amin moom lañ la confirmer foofu nag am na loo xam ni ku ko am jël du dëgg <laughs> tax nag kon jullit day bàyyi xel boppam parce que ruux ak nafs dañu mel ci nit comme ni jant ak weer mel ci tabia bi le soleil et la lune xam nga le soleil et ñoo ñuy jox lumière mais léeg nga dégg éclipse solaire léeg nga dégg éclipse lunaire noonu ñuy éclipse moo xam nag éclipse bi bu partiel la wala bu total la te xam nga bu dee ci diine bu ñu jàppee jant bi wala ñu jàpp weer wi dañuy wax ñëpp ñu dem def la pour ñu libérer leen noonu ñuy jàppe jant bi di ko jàppe weer wi mu nekkee éclipse noonu lañuy ñuy jàppe ak naf ñoom it ñu am éclipse mu tax yonent bi dootul am jàmm pour ñu libérer leen parce que buñ leen liberewul wul rek dootu ñu nekk ci ahsanu taqwim mais ci summa radatnaahu asfala safilin la ñuy dellu te bu sañoon ku ñu koy askanale dootoo dellu foofu moo tax gis nga muy commencé bëgg a taw nga ah, waa moo tax gis nga damay wax ne xale maa ngi ciy waxtaan ak ay bokk ca Espagne man leen xale daal boo féex rek xam naa li ñu naan xale buur la may fàttaliku bi ñuy gënee nekk ndaw nekk ci daara ji bu ma saan xiin ñëpp nekk naan maam yàlla may ma ndox bu ma dundee fay la ko mu ni waaw kii dëgër na fit bi <laughs> foo koy faye <laughs> foo koy faye mais gis nga lu doy waar la ëpp naa xeeb way bi day marqué yàlla ndax xam na ni conscience am wayul fitraam moo way te fekk muy nekk fitraam rek yàlla mën na ci marché sans problème waaw bu ko defee mën na tawal ñëpp waaye ba muy xew ci mag ñi mag ñi ku nekk bu xëy ne ku nekk di fër-fëri yonent bi ni leen da dof yéen day xiin nii rek ngeen di firfiri ndax dafa ne ndox ay ñëw da xam ndax xeeray ñëw wala leneen moo tax moom bu masaan xiin rek nga gis ko mu daal di jël kalam bu ñuul bi daldi def nii daal di dem jël socc bi toog ci ruqam commencé di jàng yi muy jàng ndax ñaan rek mu ñëw di ndoxu kese kese bañ gaañ kenn waaw moo tax lu miin nag yëpp ko mais il faut faire attention waaw ndax lu ne mën na xew surtout ci bi jamono nga xam ne anasir arbaa dañu dañu déchaîné mooy li ngeen gis tey ci tremblement de terre yi hmm? hmm? ak genre incendie yi am ci forêt yeeg fu nekk yëpp a ngi jaxasoo pour le moment du ko defee ñi représenté yonent bi nag ñoom it am liggéey bu ko defee kon dafay laaj pour que nit ñi di jéem a seet nag lañuy boole seen yitte ci démarche yooyu di am ba ci salaatu ala nabi boo gisee wasallimu tasliman ci foofu la wax ci nekk pourquoi booy def taaya attaxiyaatu lillah azzakiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah assalaamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu lu tax foofu assalaamu aleyka rek ngay wax boo deme ba ca fin ba ngay soog a def salaatu ala nabi parce que dañuy bañ nga weddi sa bopp ndax mënoo wax ni ab tayibaatu salawaatu lillah ba noppi di wut koy julleeti ci moom moo tax booy pare ci boobu rek nuyoo rek nga ciy teg pour yonent bi asalaamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi moo tax wa wasallimu tasliman def bi ñaari affaire sallim ji yonenti bee ko moom mais taslim bi ci ngay permettre yonenti bi pour moom itam mu assurer la maanaam assurance tout parce que xam nga lu tax dafa am benn terroriste da ngeen dégg baat bi nag waxewuma ko ci dimension yi xew fii dafa am benn terroriste bu tudd alwaidul ilahi alwaidul ilahi terroriste la li mooy def mooy ku mu mën a enlever def la otage dina la def otage et pourtant yàlla ko ngem en face de lui mu am un négociateur ñu tudd ko alwaadul ilahi moom it mu fas yéene ku terroriste bi enlever mu joxe rançon pour ñu libérer ko mais problème bi mooy moom li mu disposé pour joxe ko rançon ak li terroriste bi soxla bokkul parce que terroriste bi achar la soxla moo tax ku mu enlevé def naan fa man yaamal mithqaala darratin wa man yaamal mithqaala darratin charran yarahu man daal ku ma jox char ma libéré la te waadullah xamul char xayr la xam moom it di wax fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara te yàlla nee na maa leen gemb ñoom ñaar kullan numidd haula wa haula min ataai rabbik wa ma kaana ataau rabbika mahdura loolu tax nag yonent bi di son ndax moom foog mu dimbale waati bi lu ko may waxiit bi tukkal àdduna waaye bi mu ci su war a sonn nag di ci am inquiétude la yàlla wàcc aaya pour rassurer ko waada allahu alladina amanu minkum wa amilu salihat la yastaxlifannahum fi l ard kama staxlafa alladina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا من بعد خوفهم أمنا kon affaire bàngoog moo tax toujours bi xam-xam di werante xel ci niveau assemblée te xam-xam di wane diplôme ba bëgg yóbbaale xel sunu boroom dafa wax xel ni ko njàng dëgg ma ah mu ni ko ñeenti mur du ko def mu ni ko lu koy def mu ni ko wax na nga jox ma sa bopp kon nag fattaqullah wa yuallimukumullah waaw gis nga jàng ba yey téere yi fu ni nga dugg fa am kilifa te tënku ci li nga war tënku xam sa bopp yàlla jàngal la lu kenn xam ba tax na kon nag dama waxoon ni duma leen retenir du yàgg mën naa continuer sax parce que mën naa ne laaluma sax deux pages ci waxtaan bi waaye ku jur yërëm soreegul waaye comme suba ci bëccëg bi dangeen da bëgg mu am waxtaan moo tax ma bëgg ko simplifier rek ba suba ma wax leen yonent bi ci li ko yàlla tudd wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin fi mu nekk nabiya rahma fan la fi mu nekk ruuxal rahma fan la fi mu nekk nafsal rahma fan la fi mu nekk aynal rahma fan la ñeent yi dafay laaj ñu xam ko bu ci nekkit fonction bi ci ban façon lay feeña ak nu ko nit ñi di yegge puisque gis nga discipline lu am solo parce que léeg-léeg manque de discipline def nit lu dara jarul mu ngi dellu ci maanaam li ma leen doon wax ci ni xam-xam kese kese bu fekkul yàlla may la nga am loo tënku xam-xam ba lam lay gaañ moo ëpp dafa am benn sëriñ yore ay taalibeem ci këram ñuy jàng ci moom benn bis ñu xëy taalibe bi ñëw ci kanamam di fudd mu ni ko xool rekk ni ko yow foo nekkoon mu ni ah, bi ngeen di wasifa dégg naa ko sax waaye boobu dama gëmmentu ci waxin bi rekk mu ni ko génnal kër gi mu defe ne day kaf mu ni ko doo fi yendu mu ni ko lu tax mu ni ko yenent bi nga man manqué respect ndax sa waxin nga bëgg a wan ni importance bi ñu jox yonent bi amu ko mu ni ko te mel noonu kenn du ko waxee sama kër di fi yendu pour wax la di teey ba ci waxu kaf sax boye boo nga di ko seet waaw walla li nga wax dara dafa ni kaf la mu jur lu nga xam ni danañu daj lu ne pour réparer ko waaw di dal ba dal ilimaan ilimaan bu nga xam ni la mu xam ëpp na la mu jàng ëpp na neexaayu baatam buy jiite fii nit ñi dañuy jooy muy jiite nit ñi di jàng suuratul ahzaab ñëw ba ci aaya bi sës ci inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi mu yem ca aaya ba ni c'est pas pour muy jàng inna allaha wa malaikatahu naka la sëlmal ñu ni ko joxeel ñaan ñu gis ko muy def nii ñu naan lii lan la lii la nekk yàlla dagg na waxam ñu wax wax mënatul kàddu gi mënatul jóg ndax rek le fait mu mel ni ku yéenewul yonent bi ba yem ci verset bale sans pour autant mu enchaîner ak inna allaha wa malaikatahu mooy tax nag di tey baax parce que lii léeg nga simplifier dara fekk simple waaw ko defe yu mel noonu nag discipline yooyu bu subaa incha allah ñu dem ci waxtaan te itam li ñu miinoon mooy gàmmu yi nit ñi fanaan ba suba mais jaru ñaari baat ak ñetti baat rek ñu barkeeloo ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan leeram fu ñu nekk mu duñu fa fekk martabaam fu ñu nekk mu duñu fa fekk ndax am na lu nga xam ni kenn mënu ko jënd hmm? te mag ñi dañu baax gis nga boo amee kilifa te ñu branché la jamono bu nekk li lay jariñ dafay mel ni dañ la ciy téléchargé man burdu moment bu ne ak bayti bi may sentir damay jékki-jékki rek di ko répété te duma xam lan la waaye jamono bii dañu ma wax ni nañuy répété walan yadiqa rasulallahi jaahuka bii ida alkarimu taxalla bismi mi nañ koy bamtu ci jamono bi ndax am na yoo xam ni mu ngi ñëw yàlla ngi ñuy musale ni nag waaye itam du tax ñu dal xel waaw dina ma dégg ci góor gi bés mu ni ma Mustafa ma ni ko waaw mu ni ma Sénégal gii ma ni ko am ah, mu ni ma bala ñu ko man defar ma ni ko am ah, mu ni ma lu rëy lu ëpp nit ñi wàcc fi ba noppi genre apocalypse waaw moom mi koy wax ndeysaan bu doon wàccit muy gën a sonn ñëpp ndax lu mu xam dana ko def pour intervenir parce que ñoom dañuy xeex ak yàlla waaw du fi wàcc laa wax waaw mu ni danaa ko wàcc ñu nu ko ay waaw bu ko defee yii fi xëccoo bi moo gi yàlla xam ne rek ndeysaan ak mbaaxam parce que xam nga dafay am loo xam ni di ko comprendre dafay am solo sunu boroom yërmandeem kenn xamul fu mu àkke ji mais izam izam day tax léeg-léeg du tal li mu bëgg a def yépp mu def moo tax mu ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy def benn rôle de substitution ndax comme moom Isa may ko mu def lépp ba mu jeex yonent bi moom mën na am possibilité pour que di coordonner Isa bi ak raxma bi ba mu jariñ nit ñi te du leen gaañ moo waral mu indi laqad jaakum parce que xam nga wax naa leen sànq ci yaasin wal quraanil hakiim innaka la min al mursaliin ala siraatin mustaqiim waaye tanziil al aziizi rahiim al aziiz ar rahiim aziz boobu mooy tax pour mu ñëw ci rahiim bi ba mu jeex du ko yomb mu defal yonent bi une délégation de pouvoir ci izza bi ak ci rahma bi moo tax laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum waaye moom sañu ko ci ñëpp bil muminina rek raufur rahim jeex bu yàlla talul ndax izza bi yonent bi moom dana tal pour xett li jullit waaw kon nag yàlla nañu yàlla taas yu barkeem yàlla nañu yàlla yokkal sutura yàlla nañu yàlla defal tawfiq yàlla nañu yàlla musal yàlla yàlla tette ñëpp kenn ku ne ragal yàlla boo ko gis kenn ku ne yàlla na yàlla ubbil la buntu xéewal yëpp ci barke yonent bi kenn ku ci ne wuti moo xam njàng mooy njàng la moo xam projet boo am la moo xam boutique boo bëgg ubbi la moo xam sax sëy boo bëgg a takk la ah am na am na jigéen ñuy wax ci suuf yàlla bu ci wujju bokk <laughs> ndeysaan ku ne dal yaa xam bu dee njaboot goo am bëgg leen a yóbbu xam dañuy war a yokk seen xam-xam wala dañu war a am lu ñuy def pour jàppale la yal na yàlla barkeel yépp te kenn ku ne loo manquele ci sa diine ba nga manquele ko ci sa jikko ba nga manquele ko ci sa ngor yal na yàlla jël leeru yonent bi mu sol ko ci yow ba sa jikko mat sa personnalité mat sa dignité mat te loo yootu nga jot ca tëb coono ba du bare waaw ci barke guddeem gi ak barke bésam bi ndax altine mooy bésam waaw watax na tabaarakallahu barke mag ñu baax ñi damay tooñ bokk yi démb ba ñuy nekk ci symposium bi na dama sol sunu laafa laafa comme yu Baay yi waaw am ku ma ne waaw laafa bi nga sol nag ma ne ko dañ ma wax ni ma fan yi benn mbokk dafa gént may def benn waxtaan ñu gis sunu maam sëñ tuuba mu toog ci biir waxtaan wi ah ma ne ko looloo tax sol laafa bi nag pour saluer pour saluer geste boobu waaw ma daan na tabarakallahu eh, li ñu bokk ak yéen dafa bare waaw ah, ci dama ko wax benn mbokk murit ndax dafa am lu ma ko liggéeyloo mu di ma jaabanteloon ma ne ko gis nga ma woo ko boobu ñu ma ne ko gis nga naa ma ne ko cette fois-ci bu tardé mu ne ah, ma ne ko sëñ Touba koy réglé mu ah, ma ne ko ah <laughs> bu tardé bi yoon rek moo koy moo koy réglé <laughs> mu fëx waaye amul vingt quatre heures mu réglé affaire bi ma ne waaye baax na ci kat waaw eh, ñoo bokk yëpp maam yu baax yépp ñoo ko bokk góor ñu baax ñeeg jigéen ñu baax yëpp ñoo ko bokk soo nekki ne si biir dañ ciy waxtaan jamono bu ne ndax moom sang piir la waaw gor piir la gar piir la wa tabaarakallah waaw laaw ko nag ñu sant ñëpp kenn desul moom daal yëf yaa ngi noonu yàlla yàlla defal ñëpp sutura yàlla defal ñëpp teraanga nañu jàng ku nekk fatiha ak falaqi ak naasi ak juróom ñetti lii laa fi Qurayshin ak salaatu ala nabi bu waay man rawatina salaatul fatihi ñu jàng ko def ko hadiya yonent bi sallallahu alayhi wa ci guddeem gi ku ne yaa xam li ci sa xol yal na yàlla rek saytu ko defal la ca la la gënal te mu bañ a yàq ci sa mbir dara da nga avancé ila yawmil qiyaamati góor jigéen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 الله الرحمن